waaw euh, pathologie yu gën présente fii nii daanaka mooy HTA bi maanaam hypertension yi ak diabétique yi mais aussi comme tamit si région vallée bi nañ nekk en fleuve Sénégal bi euh, feebar yi buñ si gën gis mooy yenn parasitose yu mel ni bilharziose ak yenn ak yenn feebar yi donc boo xoolee daal population ñu fi gën ñëw boo xoolee troisième âge la donc euh, forcément feebar yi gën a bëri mooy HTA ak diabétique yi aussi tamit. ci vallée bi lañ nekk consommation yi ceeb la tamit ak euh, dëwlin bi Mauritanie bi jógee la dëwlin bu ñu bu ñuy consommé bi lu bëri boo xoolee ñoom ñëpp boo boo leen defoon tey analyse yooyu gis ñoom ñëpp dañu facteur de risque la yoo xam ni day favoriser lu mel ni hypertension bi ak ak ak diabète bi. lu ëpp ay village ñoo ñu wër te village yooyu lu ci ëpp seen besoin yi ñuy def si ndox si dex gi dañ koy dañ dañ koy dañ koy dañ koy. constatation bi tey soo xoolee euh, duñ ko duñ ko jàll fépp département Dagana lépp ñu wax suñu xoolee département Dagana tey euh, woo ni kaay waa Dagana commune ñëw leen rek ndax ku def lu baax moom yaatalal rek yaatalal euh, yaatalal su su defee suñu borom euh, jàppale la def jox la kàttan ba nga xamante ne tey li si jublu yàlla di nga ko sottal waaw loolu moo dagana soo xoolee boo xool chatool ñëpp am na ku nekk fu waay jógee daw ñëw mooy wane kenn wërtu mooy wane ñëpp soxal noonu ñëpp soxal noonu kon foog li li ñuy def ñun mu ma yaakaar mu def ne foog ñeneen inspiré def ko